sëriñ Moustapha Beto sëriñ Moustapha Beto mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1916 ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal muy doomu soxna Assu Gay ak sëriñ Moor soxna Mbàkke moom sëriñ Moustapha Beto nag am na ñu mu bokkal sëriñ Moor soxna Mbàkke ak soxna Assu Gay ñu mën caa ràññee nag sëriñ Moodu Assu Mbàkke ibnu soxna Assu Gay ibnu sëriñ Moor soxna Mbàkke soxna Bintu Mbàkke bintu sëriñ Moor soxna Mbàkke bintu soxna Assu Gay sëriñ Mbàkke Ndokk ibnu soxna Assu Gay ibnu sëriñ Moor soxna Mbàkke sëriñ Fàllu Mbàkke ibnu soxna Assu Gay sëriñ moor soxna mbàkke ak moom sëriñ moustapha bétoo mbàkke ibnu soxna assu gay ibnu sëriñ moor soxna mbàkke ñeent nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy juróoma ngir xamale leen nag njaboot googu mu bokkal soxna assu gay ak sëriñ moor soxna mbàkke nag ñoom ñooy ñan doomu ndeyam gi nag di sëriñ moodu assu mbàkke moo njëkk a nekk nag xalifab sëriñ moor soxna mbàkke li ko dale nag ci atum 1934 ba ci atum 2008 ab xalifaam nag mooy kiim faye boroom dër bi di sëriñ abdoulahi mbàkke doomu soxna ak sëriñ Mor Soxna Mbàkke di sëriñ Mbàkke Ndokk ab xalifaam itam nag mooy sëriñ Abdullahi Mbàkke doomu soxna Assu Gay bi ak sëriñ Mor Soxna Mbàkke di sëriñ Fàllu Mbàkke guddul nag aw fan bi mu jàngee alxuraan ba noppi bañ jébbal ko nag rakku sëriñ Mor Soxna bi di sëriñ Maam Balla Mbàkke Mesre ci loxoy sëriñ Maam Balla Mbàkke Mesre nag la nelawee doomu soxna Assu Gay bi ak sëriñ Mor Soxna di jigéenu sëriñ Moustapha Béto mooy soxna Bintu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke nag lañ ko jébaloon moom sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke Mbacke soxna Bintu Mbacke nag mook sëriñ Modou Xaabaan nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag sëriñ Mor Mbacke Dendey mën cee ràññee nag sëriñ Ibrahima Mbacke Xujja mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Bintu Mbacke ak sëriñ Taala Mbacke njaboot gi soxna Bintu am nag ñooy jarbaati sëriñ Moustapha Béto jëmm jooju nag di sëriñ Moustapha Béto laataa nag ñuy xuus nag ci ay mbiram ñu wax leen nag waajur yi ko meññ nag ñoom ñooy ñan waajuroom wu jigéen wi nag di soxna Assu Gay doomu sëriñ Modou Gay jëmooñ la sëriñ Modou Gay jëmooñ ci mag ñi toppoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim la bokkoon ci 1920 nag la fi bàyyi ko moom sëriñ Moustapha Béthio nag waajuróomu góor wi nag di sëriñ Mor Soxna Mbàkke doomu sëriñ Mam Mor Jaara Mbàkke la sëriñ Mam Mor Jaara Mbàkke nag ak Seexul Xaddim nag ñoo bokk nag waajuru góor nag ak waajur wu jigéen waajuróom wii nag di sëriñ moor Soxna moo njëkk a nekk itam nag xalifa waajuram di Mam Mor Jaara ñaari jëmm yooyu nag ñoom ñoo meññ sëtub Mam Mor Jaara bi di sëriñ Moustapha Béthio moom sëriñ Moustapha Béthio nag bi matee jàng alxuraanul karim waajuram nag sëriñ Mor Soxna njatara nag la jébbal ko fa nag ku ñu wax sëriñ Mor Asta Jatara mi nekkoon imaamu Mbàkke Bawal ci loxoy sëriñ Mor Asta Jatara nag la jànge alxuraanul karima ginnaaw sëriñ Mor Asta Jatara sëriñ Moustapha Bétu jaaraat na itam nag ci dëkk bii nag di caaween ci loxoy sëriñ Souleymane Saaw sëriñ Souleymane Saaw itam nag wéel am njàngam ci wàllu alxuraanul karima bi matee jàng nag lii di xam-xam ko nag sëriñ Mouhamadou Dem nag ci njaareem sëriñ Mouhamadou Dem nag moo ko jàngal nag xam-xam ginnaaw bi nag la ñibbisi nag Mbàkke Bawal ci kër waajuram bi muy jàng nag ci loxoy sëriñ Mor Asta Jatara Jaara mi la waajuram nag sëriñ Moor Soxna nag génn àdduna nag ci atum 1934 bi mu ñibbisee am njàng nag rakku waajuram ba nekkoon nag ñaareelu xalifa Maam Moor Jaara di sëriñ Baara Xuraja Mbàkke la fi fekk mu ñëw nag jébbal boppam nag sëriñ Baara Xuraja Mbàkke sëriñ Baara Xuraja Mbàkke itam nag defoon ko loxob ndeyjooram féetale woon ko itam ci lépp loo xam ne nii nag moo aju nag ci wàllu diine ji moo xam nag di jiite jàkka ji di naaf ci weeru koor gi di jiite képp ku génn àdduna itam nag njàngum alxuraanul karim itam gu soxal njabootu Mame Mor Diarra Gueye itam sëriñ Moustapha Béto nekk jëwriñ ja wàllu googu nag la ko sëriñ Baara Xuréja nag féetale woon mu topp nag ci ginnaaw sëriñ Baara Xuréja ba ni mu noppee gis nag sëriñ Baara Xuréja képp nag ku toog toogaayu sëriñ Mame Mor taxawaay bu mel noonu nag la la féete ba ni mu demee nag ci dëkk bii nag di Béto ci atum 1957 laataa muy dem Béto nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke mi nekkoon xalifa a Mamadul Faadal Mbàkke nag bëggoon koo yóbbu nag ci suuf si nag di céel ginnaaw bu mu waxee loolu nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag mi ngi koy xamal ne bi ma toogee toogaayu Cheikhul Xadim ak léegi ci am nag at yu toll ne nag yi nga am te sant Mbàkke yaa ma ci njëkk a wax ne nag damaa bëgg nag suuf nag su ma liggéeyee loolu itam nag bég naa ci ginnaaw bu ci Cheikh Mamadul Faadal amee nag ñoom ci waxtaanal bañ naroon koo yóbbu nag ci suuf soosu nag di céel la am nag ay taalibe nag yu ñëw ci moom jóge woon nag ci dëkk bi nag di bétoo doon ko xamal ne suufus bétoo see lañ bëggoon nag nga ñëw sa jikko nag doy nañu sa melokaan itam nag doy nañu ni nga taxawee itam nag ci sa ron waajur yii nag loola itam nag doy nañu rawatina nag sëriñ baara xurëja taalibe yooyu ñëwoon seet si ko nag ngir mu ñëw bétoo na nekk fa nag ak ñoom ñu mënoon ca ràññee nag sëriñ isaa li sëriñ moor kumba kan sëriñ jigili faal kàddu yooyu ñu ko wax itam nag sëriñ moustapha bétoo itam nag ànd na ci kon lool nag moo ko yóbbu bétoo ci atum 1957 bétoo nag digganteem ak mbàkke bawal nag juróom-ñetti kilomètre la digganteem itam nag ak tuubaa itam nag juróom-ñetti kilomètre la la ci soow bi nag la féetee bi mu egsee bétoon a kër nag ak daara nag lañ ko fa joxoon ak suuf su yaatu nag sum fa man a bayee ba tax na sax ku tudd turu sëriñ Moustapha da nga ci teeg nag bétoo ndax mooy ab adresse am bi mu egsee bétoo nag ba taxawal fi kër taxawal fi daara ci daaray béto jooju nag ña fa newoon ñu man cee ràññee nag ku ñu wax sëriñ Saam Caan sëriñ Abdou Kan sëriñ Moor Xulle sëriñ Demba Seeni Diop sëriñ Aliou Ndaw sëriñ Assane Mbay sëriñ Saaliwu ak ku ñuy wax nag sëriñ Abdou Seck sëriñ Abdou Seck nag ñaar la woon muy sëriñ Abdou mu mag nag ak sëriñ Abdou Seck nag Seck nag mu mag nag ci ña fa njëkkoon nag la bokk sëriñ Abdou Seck nag mu ndaw ci bi muy moo fa nekk ba nëgën itam nag ma nga fa soo delloo nag ci way yi ko sëriñ Modou Lamine Kane nag defal sëriñ Modou Lamine Kane nag mook sëriñ Moustapha Béto nag ñoo jàngandoo ci dëkk boobu nag di caaween ci sëriñ Souleymane Saaw foofu itam nag la ñu wóolarante sëriñ Modou Lamine Kane nag mi ngi dëkkoon nag yaañ ka ginnaaw bu mu nekkandoog sëriñ Moustapha Béto nag ci loxoy sëriñ Souleymane Saaw moom melokaan nag bi sëriñ Moustapha Béto nag meloon ak xam-xam nag bu mu amee woon taxawaay daal bu mu taxee waxee woon nag ci ginnaaw sëriñ Souleymane Saaw mii la sëriñ Modou Lamine Kam yi nag xamoon ba tax na nag mu wólarante woon nag nag sëriñ Moustapha Béthio mii def na nag ay way nag ci sëriñ Moustapha Béthio di ñu wax nag jikkoy sëriñ Moustapha Béthio melokaanam nag ak jaar-jaaram ñu teew lu ko déglul ma wax la li ma xam ci ay mbiram Cheikh Moustapha Béthio ma làq ay ngërëm billaahi am dil Moustapha mii li mu am ceewen ci ay at wecci nag jihaaram waman yuhajjir fii sabilillaahi am muraqaman kasiran mooy am am ceewen la làq mboolem fànni xam-xam fiq ak luq roolam ilmul isaab ilmul nujum tawhidam min bëx di nax wan xaasaha bayaanam jàng ak juleeg bay moom la def mi daayam addi si njol makka yi mooy jotaayam yaxal kitaabullahi fii du kaanam lay xëya ngoon loo teggi bamba maamam juróom ci ay isib la daan defam xëyam réyal ko laaya dem xasar ak xumusam te du tere muy dem di maslaak aw nitam diggante say xunaak omar ma doon kokam ak say xunaa maxtaar si la ma doon ab soppeem ak ibinaa babba ma doon jàmbaaram day dem di nemmee ko ji maxtaar saaw moomam ku baax la woon saadix la woon cey aalim te yooyee saa aw ñam xamul lu dul mboxam la daan jëfandikoo di muñ mitiitam ci mbiri ndox yi ñu war a naan booba la am ca yooyee saa muy ndox mu nax ànd ak xorom Cheikh Moustapha ci lii la sax ba am ngërëm bi seex yi solay maraw kulla alim ngërëm balaa wén nga utal ko seere ngërëm ku moo taxoon ma may ko doomam déglul ma wax la mel ni mbir mu mos a am sama digg ak mii Moustapha maa dikki xam man mi Lamine mos naa di leerlu ak manam bi xatti yëb di hii di barki jëfam ma daal di xëy bind ko leetar na ko am naan ko bindal matut ci teggi maamam kem ñaaru fan la am ma ma am ahmadul muhniyan taxalaa maa ko am jës boog mu waa yi boog mu xaddi maadam fii xatti yëb di hii te ndax ku amul lum seex du am lum naa am dafa jëfoon ni mu tolloo ànd ak xam-xam képp ku bind tagg yi faaw nga am ak pay gu wér benn xonaa aw fil xiyaam maa njëkk am bindam loxom ci li ma xam fii ku li ak raan ca suñu maas ka fa am moom Moustapha Almbakki yu mi ñu def imaam maamam yi war na leen ñu sant fil xiyaam woyam nga ak jomam ja ànd ak fulaam ja lislaam nga ak sellam nga doy na yiy jaam kenn mus gis mu toog fu dul palaasam mbaa muy lijjanti ji mbiram procès building di gouvernement xamuñ ay buntam banque yi daan leble xamuñ ak bankam tu dëg dëjëg màggal yi mbaa ci toolam wala ñu ko fi béréb ngir lu fa am téere yu lëj mbokk yu lëj lijjanteen du dox di dem ci gouvernement ngir li mu xam yiléew doxin yombul ci waxtu wi ko xam daa xam ne xaw naa doon mu xaal ci lu ma xam sumtum wujuhum tawilun baxdawoo da nga am ilmul sahihun wa nuurun war a laa ci nga am daawul sa jamtaloo ko jàmbat ay mbiram du xaari kenn aw ñamam mbaalu mu am Cheikh Moustapha ci melokaan wi laa ko xam bi xadra xam si bi xaami na nga am bi mu matee jël soxna moom sëriñ Moustapha Bétto ñu jox ko nag soxna Faati Mbàkke moom sëriñ Moor Buso Mbàkke moom maam Moor Jaara Mbàkke mook soxna Faati Mbàkke sëriñ Moustapha Bétto Mbàkke nag mook soxna Faati ak njabootam ñu mën caa ràññee nag sëriñ baara mbàkke dikki toog nag ab toogaayam soxna assu mbàkke sëriñ taala mbàkke soxna mbeen mbàkke sëriñ ahmadu bamba mbàkke sëriñ moor bu sa mbàkke yoraatoon na nag soxna suñuy wax soxna assu saaw di doomu sëriñ suleymaan saaw mii ko jàngal mook soxna assu saaw nag am nañ ak njabootam ñu mën caa ràññee nag soxna maam busa mbàkke soxna bintu mbàkke soxna waalo mbàkke sëriñ fàllu mbàkke soxna maam ami mbàkke sëriñ moodu abdoulaye mbàkke sëriñ abdu samat mbàkke yoraatoon na soxna suñuy wax soxna busa ba nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag soxna faati mbàkke sëriñ saam mbàkke soxna seyna bu mbàkke sëriñ moor soxna mbàkke yoraatoon na soxna suñuy wax soxna xadi njaay mook soxna xadi njaay itam nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññe nag sëriñ moodu mbàkke soxna maymunatu mbàkke soxna bintu mbàkke maam soxna mbàkke ak sëriñ jiili abdu xaadir mbàkke sëriñ mustapha bétu yoraatoon na soxna suñuy wax nag soxna ami gànnaar mbàkke doomu cheikh mamadul faadal mbàkke la mook soxna ami gànnaar nag amuñu nag ak njaboota yoraatoon na soxna suñuy wax soxna seeni diba mook soxna seeni diba itam nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee nag sëriñ soye bu mbàkke sëriñ moustapha mbàkke soxna ummi mbàkke soxna aji mbàkke sëriñ mammoor mbàkke soxna baali mbàkke soxna assu mbàkke ak soxna muslimatu mbàkke yoraatoon na soxna suñuy wax soxna yaasin sekk mook soxna yaasin sekk itam nag am nañ ak njaboot ñu man caa ràññee nag sëriñ abdoulahat mbàkke sëriñ cheikh baara mbàkke sëriñ amsatu mbàkke di kim faye nag sëriñ amsatu mbàkke bu daaru moxti soxna muumi soxna busa mbàkke ak sëriñ soxna Ndey Sàll mook soxna Ndey Sàll itam nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññee nag soxna Awa Cheikh Mbàkke soxna Bintu Mbàkke soxna Faati na soxna suñuy wax soxna Ami Njaay mook soxna Ami Njaay lañ am muy doon wax nag sëriñ Basiiru Moor Mbàkke yoraatoon na soxna suñuy wax soxna Maam Faati Lamin Mbàkke mook soxna Maam Faati Lamin Mbàkke itam nag bant lañ am muy sëriñ Abdul Latif Mbàkke yoraatoon na soxna suñuy wax soxna Kinne Ngom mook soxna Kinne Ngom itam nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ Saaliwu Mbàkke soxna Assu Gaawaan Mbàkke sëriñ Mustafa Beto itam nag nag yoroon na soxna suñu wax soxna Faati Kan mook soxna Faati Kan nag benn bant lañu am muy sëñ Abdou Xaadir Mbàkke waaye soxna Faati Kan mii ak sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke mii nag gudd ñu aw fan yoraatoon na soxna suñu wax soxna maam Awa Mbàkke doomu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke la benn bant lañu am nag muy soxna maam Jaara Mbàkke yoraatoon na soxna suñu wax soxna Naata Saaw mook soxna Naata Saaw nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Abdou Lahat Mbàkke sëriñ Muqtada Mbàkke sëriñ Seexuna Mbàkke ak ñaari doom nag yu mu tudda sëriñ Maam Mor Mbàkke soxna yi la sëriñ Moustapha Bétoo nag dëkkoo woon njaboot yi nag la ci am ngir xamale leen nag njaboot googu mu am nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna Astou Mbacké bi mu matee dem kër sëriñ Abdoul Aziz Baara ko jébbaloon ko lañ ko jébbal nag rakkam ja sëriñ Bassirou Mbacké Khoudia Dieng soxna Astou Mbacké nag mook sëriñ Bassirou Mbacké Khoudia Dieng nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Soufi Mbacké ak soxna Jee Mbacké doom ji nag di soxna Maam Boussa Mbacké bi mu matee dem kër sëriñ Maam nag lañ ko jébbal jébbaloon moom sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke soxna maam Buso mook sëriñ Maam Mor Mbàkke déndey nag benn bant lañ am muy sëriñ Xaadim Mbàkke doom ji nag di soxna Bintu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Mbàkke moom sëriñ Mbàkke Ndokk nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moodu Mbàkke nag moom sëriñ Mbàkke Ndokk nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Moodu Assu Mbàkke sëriñ Mustapha Mbàkke Béto soxna maam Buso Mbàkke doom ji nag di soxna Waalo Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Cheikh Mbàkke Mbàkke nag amuñu nag ak njaboota ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdul Xafoor Mbàkke moom soxna Waalo Mbàkke ñu jébbal ko nag sëriñ Ibrahima Mbàkke xujja mook sëriñ Ibrahima Mbàkke xujja nag amuñu nag ak njaboota doom ji nag di soxna maam Ami Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Daam Ka nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Daam Ka nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag sëriñ Abdoulahat Ka ak soxna Saynabu Ka bi soxna maam Ami nag jógee ci loxoy sëriñ Daam Ka lañ ko jébbal nag sëriñ Cheikh Seck Rijaal mook sëriñ Cheikh Seck Rijaal nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag soxna maam jaara sekk soxna njóoba sekk ak soxna maam mariam sekk doom ji nag di soxna faati mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ cheikh jóob nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ cheikh jóob nag am nañ ak njaboota ñu man caa ràññee nag sëriñ xabbaan jóob sëriñ ibrahima jóob soxna bintu jóob ak soxna nday jóob doom ji nag di soxna saynabu mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ abdu mbàkke moom sëriñ mbàkke ndokk nag lañ ko jébbaloon soxna saynabu mbàkke nag mook sëriñ abdu mbàkke bu sëriñ mbàkke ndokk nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee nag sëriñ aboo mbàkke soxna Mbàkke soxna Maymunatu Mbàkke ak seeni rakk doom ji nag di soxna Maymunatu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Taala Mbàkke moom sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Taala Mbàkke nag bu sëriñ Moodu Xabbaan nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Seexuna Mbàkke sëriñ Moodu Mbàkke soxna Muslim Mbàkke soxna Xadi Mbàkke ak seeni rakk doom ji nag di soxna Ummi Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Seex Bintu Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Seex Bintu Mbàkke nag amuñu nag ak njaboota bi soxna Ummi nag jógee nag ci loxoy sëriñ Seex Bintu Mbàkke lañ ko jébbaloon jébbal nag sëriñ Mbàkke Seck mook sëriñ Mbàkke sekk nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Seexuna Seck soxna Xuraja Seck soxna Anta Seck ak seeni rakk doom ji nag di soxna Aji Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moor Gay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moor Gay nag am nañ ak njaboota ñu cee ràññee nag soxna maam Marème Gay soxna maam Busa Gay sëriñ Saaliw Gay ak seeni rakk doom ji nag di soxna Baali Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ saaliwu Mbàkke moom sëriñ Njoogu Mbàkke nag lañ ko jébbaloon soxna Baali nag ak sëriñ saaliwu Mbàkke nag am nañ ak njaboota soxna Xadi Mbàkke soxna maam Faati Mbàkke sëriñ Moustapha Mbàkke ak seeni rakk doom ji nag di soxna Muuminatu Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Moustapha Mbàkke ndokk ko jébbaloon mook sëriñ Moustapha Mbàkke ndokk nag am nañ ak njaboota ñu mën ca ràññe nag sëriñ Seexuna Mbàkke sëriñ Mbàkke Mbàkke soxna Faati Mbàkke ak seeni rakk doom ji nag di soxna maam Busa Mbàkke bi mu matee dem kër sëriñ Abdu Sekk nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Abdu Sekk nag am nañ ak njaboota ñu mën ca May Sekk soxna Nday Sekk sëriñ Baara Sekk ak seeni rakk doom ji nag di soxna Astou gaawaan mbakke bi mu matee dem kër sëriñ Xaadim mbakke moom sëriñ Cheikh Baara Mbacke Khourédia nag lañ ko jébbaloon soxna Astou Gawane Mbacke mook sëriñ Xaadim Mbacke bu sëriñ Cheikh Baara Khourédia nag am nañ ak njaboota ñu cee ràññee nag sëriñ Hamet Mbacke sëriñ Cheikh Baara Mbacke soxna maam Boussa Mbacke ak seeni rakk doom ji nag di soxna maam Jaara Mbacke bi mu matee dem kër maam sëriñ Boussa nag lañ ko jébbal mook maam sëriñ Boussa nag amaguñ nag ak njaboota njaboot gu jigéen gii ñu leen tuddal mooy njabootu sëriñ Moustapha Beto kër yiñ dem njaboot yañ fa am ñooy lenn nag ci sëti sëriñ Moustapha Béthio yi mu wéy des nag ci dëkk boobu nag di jàng ak nag di jàngale ba ni mu génnee àdduna nag ci atum 2009 mu def nag lu takkoo takkoo takku nag ci ak dundam bi mu jàngee nag ba ñibbisi waajuram nag sëriñ Baara Xuréja moo ko jël nag taf ko nag ci boppam féetale ko nag ci lépp loo xam ne nii moo aju nag ci wàllu diine ji ku génn àdduna nag sëriñ Moustapha Béthio nag dem taxawu la lépp loo xam ne nii itam aju na nag ci wàllu njàngum alxuraan itam nag gu soxal kër Maam Mor gi sëriñ Moustapha Béthio nag nekk nag ca kanam lépp loo xam ne nii daal moom mooy weeru koor muy jiite itam nag naaf gi julli korite ak tabaski itam nag mu nekk imaam bi ba ni fi sëriñ Moodu Busa Jeng nag tabaxee jumaa nag ci mbàkke xewar mu nekk nag imaamu nag mbàkke xewar ci li ko dale ci ajjuma benn fan nag ci weeru janvier ci atum 1993 ba ci ajjuma 14 février nag 2003 moo nekk nag imaamu jumaay mbàkke xewar moom sëriñ Moustapha Beto ginnaaw bu mu tëddee feebar nag ci atum 2003 ci le 14 février sëriñ maxtaar mbàkke moom maam moor jaara nag la bàyyi woon nag mu wuutu ko ginnaaw gi itam nag fabaatoon na doomam sëriñ baara bétoo itam nag mu koy wuutu ci ajjuma yi sëriñ saam nag di doomam daana wuutu itam nag ci ajjuma yi ñett ñii nag ñoo ko wuutu nag ci ajjuma yi nag ba ni mu àdduna moo nekk itam nag ñaareelu xalifa waajuram di sëriñ moor soxna mbàkke li ko dale nag talaata 16 décembre janvier nag nekk na itam nag juróom-ñeenteelu xalifa février 2009 mu nekk nag ku jaxasoog cheikh mohamadul faadal mbàkke moom sëriñ moustapha bétoo mbàkke cheikh mohamadul faadal mbàkke itam nag foboon na doomam ju ñuy wax soxna ami naar mbàkke jébbaloon ko sëriñ moustapha bétoo na ngir mu dëkkoo ko soxna ami naar nag mook sëriñ moustapha bétoo nag amuñu nag ak njaboota cheikh dul faadal itam nag fobaatoon na doomam ju ñuy wax nag cheikh ibrahima mbàkke joxoon ko sëriñ moustapha bétoo itam nag ngir mu yar ko di xamal sëriñ moustapha bétoo jikko ji nekk ci yow nag laa soxla nag nga defal ma ko nag ci ibrahima mii bàyyi ko fabaatoon nañ doomu cheikh mamadul faadal bu ñu doon wax soxna maam awa mbàkke jébbal ko sëriñ moustapha bétoo na ngir mu dëkkoo ko ma cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag liggéeyaloo woon na ko ay tool ci tuubaa bogo tudde na cheikh mahamadul faadal mbàkke doom ku jaxasoo woon ak sëriñ tuubaa cheikh abdul ahad mbàkke la bi cheikh abdul ahad mbàkke nag tabaxee daaray kaamil la tegu daaray kaamil bi nag bi ñuy fab téere yee nag di ko fa def ñett ñii nag la sëriñ abdul ahad mbàkke jëloon nag ngir ñu féetale loolu muy sëriñ aliou ndaw di fonctionnaire sëriñ moodu maamun ñang ak sëriñ moustapha bétoo fii fii université bi nekk nag di université Baye Laat biñ ko fiy defar sëñ Abdou Lahad Mbacke itam nag sëriñ Moustapha Beto itam nag la waxoon nag ngir mu natt ko ba tax na université bi itam nag sëriñ Moustapha Beto moo ko natt ci ndigalul sëriñ Abdou Lahad Mbacke bi sëriñ Abdou Lahad nag goree dëkkam bi nag di Touba Belal yóbbu woon na fa sëriñ Moustapha Beto mu def fa nag ñeenti weer ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett nag la ko fa jàngal sëriñ Abdou Lahad Mbacke itam nag joxoon na ko ndigal mu def ab tournée nag ci yenn réewu Afrique yi ñu mën cee ràññee nag Mali Burkina Faso Niger ak Côte d'Ivoire ci mois de juin 1979 nag la amoon tudd na ñaari yoon doom Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad noonu la meloon itam nag yeneen doomi Cheikhul Khadim yi moo xam Cheikh Abdou Khadr tudde na ko doom Serigne Souhaïbou Mbacké tudde na ko doom Cheikh Mourtada Mbacké tudde na ko doom soxna Faati Ja mi nekkoon taawu Cheikhul Khadim itam nag tudde na ko doom soxna Maymunatu Mbacké itam nag tudde na ko doom soxna Muminatu Mbacké itam nag tudde na ko doom noonu itam nag ni la meloon itam nag ak njabootu Maam Mor ñëpp itam nag tarbiya wu na leen kenn ku ne nag am cër boo ko joxoon mu séqal nag yeneen buntu kër Mamor Jaara yi ñii mu nekk seen mag ñii mu nekk seen rakk itam kenn ku ne itam nag tarbiya la bari na nag njabootu sëriñ Mor Soxna goo xam ne nii itam nag sëriñ Moustapha Béthio itam nekkoon na ñoo moom ñu mën cee ràññee rek sëriñ Abdoulahi Mbacke mii toog toogaayu Mamor Jaara nekkoon na itam nag ci loxoy sëriñ Moustapha Béthio soo delloo nag ci way yii ko doomam sëriñ Abdoul Ahad Mbacke way ñuy wax nag lu bare bare bare nag ci dunduk sëriñ Moustapha Mbacke Béthio googu jaar-jaar nag bu mu amoon ci ron nag ay waajuram bëgg nag bu ko ay waajuram nag bëggoon relation bu yaatu nag bu mu amoon nag cheikh mouhamadul faadal mbàkke conseiller nag bu ko sëriñ tubaa cheikh abdul ahad mbàkke defoon taxawaay nag bu mu amoon nag ci ron sëriñ baara mbàkke xurëja mën a muñ nag gu jëmm jooju nag mënoonu muñ moom sëriñ moustapha mbàkke bétoo nattu nag gum daa nattu boppam nag ngir suñ borom bi fonk doomu aadama nag gu mu defoon lu yaatoo yaatu daal lañu ñu doomam jii nag mu tudd sëriñ tubaa cheikh abdul ahad mbàkke nag di xamal ci ay way nag yu mu defal nag nag sëriñ Moustapha Mbacke Beto na ñu teewlu ko bismillahi yàlla jërëjëf wuti ko yoneen ba moo di ndawam ku xam mbiram gëmi ko abdul ahad boo goree jugal taway ki jox yéere yu jot ak teraanga ndax xarab yoru ko waaroot naa man ci yàlla mi di xëy din wan sañ-sañam ak kattanam bañ xam ne lëf taw ko seex mustapha xëy na tàgguy ñoñam ak bërëbam bàyyi nu fii nuy xalam addina nan fase ko addina moo di këratiis ak balaa ak i war war nanu ay yoonu yoon baaxul ku xam moyu ko fu nuy jëleeti ku sedd xol sawar bari jom dëgg bu wér ci jëfam mennam ki moom lu ko dal doyloo borom saam ba fab mboolem biram joxe ko fu nuy te ko nuy jox ñam yu doy ak ndox tey soññe naa bu mu fi des fii ku ko xam nawe ko te daana jox nit ñi añ bañ añ ba noppi mu jël desoo defab añ ngirug woyof jugal roy ko mboolem ña daa teewe ab jotaayam ak barabam xam na ne lii ma fi wax lu wér la kat téye ko te benn tibb bu lew nga jox ko nag aji xiif moo gën tabax junni ci jumaa yu mag joxe ko ngor la su set dib jullit dib santkat di ko way ba tax na kuy waye dee ko def lu bon sooy ko ci ak ndawam la saxoo xiif ak marak mu ñu wattu xuraana jàng xam-xamam jëfe ko te ñaari fukk ci téere bi yàlla miy may la bind wala mu ëpp mbaa mu far jage ba noppi nag xam ne lii taxul a raw fa ñu jëm mu jënde ko taalubeem ba xam ngërëm fati ko borom belal may xalifatul xadiimi da koo doyloo ba tax mu ko daa wóolu mu ñëw jege ko roy ko ci jëf ak i wax ak ci ay melo it def ko sëriñ daa ko liggéeyal ba far niru ko ca fit ak xir ci bernde ak xamal ko xamul ak bëgg sayxul xadiimi ndax ko bañ xale ko sëriñ fadilu safoo na ko ba jox ko ci ak njabootu boppam te fadlu ko xam yëbu ko itam sëriñ baara moom soxna xuróy ja da ko gërëm ba seere ko ci mbooloo ñu gëm ko ja ko ridwaanu rabbin alayhimu mulaasimahum fii kulli waqtin ta ñuy gëm ñun taxam jafe ko fonk na maamam borom saamaki mbàkke xewar taar na mbàkke sagal maamam te yebluwu ko jiita juma ak bay ak naafila ak yéwénal moo di liggéeyam bu sax te def lu bon safu ko yar nag njabootam ci diine ba ñu yeewu bu wér yàlla nañ fi des te saxoo mbégam lu bon sori ko ku mas di ñëw ci jotaayam boo defee lu jubul mu ne la lii rafetul nee rafet doxe ko sañ ci bëtoo di fa xam fa njëriñ bu muñutoon du ko man kii politique ñuru ko luy xeetu mbég ak ngërëm ak luy waral xela dal yàlla may ko borom bétoo te sange ko salaatu rabbil wara tusabbitul busara ala muhammadina te ay ñoñam jege ci yar jàng jàngale ak topp nag ci ginnaaw sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ak ñi mu séqal Maam Moor Jaara ci la sax nag ba nim tooge toogaayu Maam Moor Jaara ci le 28 décembre 2008 ba le 13 janvier 2009 mooy sutub Maam Moor Jaara itam nag bu njëkk a toog nag toogaayu Maam itim nag Maam Moor Jaara moo njëkk a nekk imaam itim ci jumaay Maam Moor Jaara ji nekk Mbàkke Bawal ci le 1er janvier nag 1993 bala 14 février nag moom Sëriñ Moustapha Béthio nag mu nekkoon ku amoon nag ay xarit nag ak nag ay kóllëre ci kóllëre yi mu amoon nag te doowu tàggoog ñoom nag guddeeg bëccëg ñu man cee ràññee nag Sëriñ Saaliw Jóob xutba Sëriñ Saaliw ndaw ci dëkk bu ñuy wax caaween Sëriñ Moustapha Saaw ñu gën koo xam ci Sëriñ Moustapha Issa Sëriñ Saam Saaw ñu gën koo xam ci Sëriñ Daam bi nag di caaween dikkoo sëriñ Ahmed Diop sëriñ Mor Soxna Samb nag bu Mbàkke Bawol nag ak nag ay rakkam sëriñ Jibril Thiam nag ak ay rakkam ak ñeneen ak ñeneen nag ci mbooloo mu takkoo takku nag mu sëriñ Moustapha Bétoo nag daa àndal mu nekk nag ku bëggoon alxuraanul karim ku ko daa jàngitim ba tax na nag bind na nag lu tollook ñaar fukki kaamil alxuraanul karim kaamil bi mu njëkk bind nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke nag la ko jébbaloon bindaatoon kaamil itim nag jébbal magam sëriñ Modou Baara Mbàkke sëriñ Gumba Sall sanc nag dëkk bi nag di booberéel si sëriñ Moustapha Béthio itam nag mu bindal ko kaamil ak yeneen ak yeneen i kaamil yoo xam ne ni nag bi mu ko bindee ba noppi ay kóllëreem nag la ko jox soo delloo nag ci way yii ko sëriñ Seexuna Ndokk nag way mi ngi yéemu nag ci taxawaayu doomu sëriñ Mor Soxna bi bëgg googu mu bëggoon alxuraanul karim fonk nag gu mu fonkoon nag ab taalibeem sàmm boppam nag gu mu sàmmoon boppam xamit nag fi mu bokk ne maamam nag mooy maam Moor Jaara wéetal nag gum daa wéetal nag suñu boroom fonk nag gum toppoon nga nag ci ginnaawam doomu sëñ moor soxna bi daal nuru gu mu nuru maamam nag maam moor jaara la ñu sëriñ seexu naa ndokk nag di ñu xamal ci way yii mu ko defal nag ñu lu ko bismillahi maa ngi yéem yàlla mi kenn xamul dayoom wa du maa ngi dellu jéem di way wolof yi leen di wax ci dund sang bay imaam kay doomi moor soxna mu maam moor soxna jaara magi daam mbër ma ñu xam ci bépp gox muy sayxu Moustapha Bito mi aji way jile satoo xam naa bii fi dawaam walaali wa sahbil kiram ak waa ju jaar ca fanu dox Cheikh Moustapha xaalim la woon xaabit la woon mufti la woon tab dëgg laa ko nit la woon mësuta jàpp nit di nax liggéey na moom ci diina ji lu rëy ne woon di jaare ci ay taalubum ngir yéene gi mucc amoon bëggoon mu dox jëfal na maamam sayxu moor mbër ma ne woon ak tab gu wóor diggante miskin ak faqiir ku masa ñëw mu di la jox moo daan saxal guddi gu jot téeméeri rakkab kaamilit xam ngeen ne kooko amulit am kem ci benn yoon ku sax ci maandu dete woon masuta dugg ci lu nax ab xam-xamam yéem nay kemam ci xeeti fann ak gëmam sëñ moor lu ber la aw nitam ngir fu mu tollu daan ci wax ngir sëñ mamar yamal xiyaam ca taxa taxawaayu bépp jaam lanu di xam ko neema naam te bul ko weddi bay torox xamal itam nit ku amoon ak dégg xam-xamit la woon fasaaxa moo ko amee woon du wax nga ni laaj wax na ndax te ku bëggoon ku jàngi la xam-xam tollool lu yell la xamal ne sax luñ dégle la ku diggante xaalima ku doon jaaxit bu mbémpañ bay tañax ku mas a jëbal ko sa nos su la gisee ci jëmi bis jàjjar la ngir nga bay sa saf ci jëf ju baax te doo ko rax maytub safaanta mooy li war ku amee taalibe bu wér fu leen di jaare ca ngir ñu jub te ba duñ tàbbi ci baax mosu te bëgg kuy defub safaan ci ñoom ngir rek ñu jub saa yu gisee safaan mu jub lu si mu dal di koy jalax te moom da daan sellali ruu ngir xam ni ru yaa jar xaroo ku fonk jëmm bay ruu yaram wa day mujj fonox lu dul ku mokkal alquran suuf du juróom ñanant yéen limoon téere bu bamba ko wax te ku amoon it itte xam-xam ku daan ko sonni la ba xam ci lii te bir ne la ngir moo taxoon fu ne la dox jëmm jooju nag di sëtu maam moor jaara di doomu sëriñ moor soxna mi ngi génn àdduna nag ci feebar nag bu ko tëral ci kër gi mu am nag ci mbàkke bawal ci bisub talaata fukki fan ak juróom nag ci weeru tamxarit ci atum 1430 nag ci gàddaay gi talaata fukki fan ak juróom ci weeru tamxarit ci atum 1430 nag ci gàddaay nag muy mardi 13 janvier mardi janvier ñu yëgal ko nag ki fi nekkaloon sëriñ Touba Cheikhul Khadim di cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacke mu sàkku itam nag ci rakkam sëriñ Muntaqa Mbacke Basiiru mu ñëw nag taxawu nag doomu sëriñ Mor soxna bi di sëriñ Moustapha Beto ñu jébbal ko boromam nag ci armeer yi mbusoo bi ca wetu nag waajuróomam wa soo delloo nag ci marché bii ko sëriñ Abdul Karim Mbacke moom sëriñ Makhtar Mbacke moom Maam Mor Jaara Mbacke nag defal mi ngi jooy nag ci marché bi ñàkk googu ñu ñàkk nag wéetoo mbetteel goo xam ne nii nag waa Mbàkke xewar nag xëye woon nañ ko kenn itam nag ci njabootu Maam Moor Jaara nag gu fi bàyyi ko boroom xam-xam nag bu mu nekkoon nit ku sell nag ku mu doonoon cofeel daal gu nit ñi amoon nag ci moom tem xëy nag dëddu leen lañu sëriñ Abdul Karim Mbàkke nag moom sëriñ Maxtaar Mbàkke moom Maam Moor Jaara nag di ñu xamal ci marché bii nag mu def nag ci magam di sëriñ Moustapha betoo nag ñu teewlu ko Cheikh Moustapha Mbàkke moo xëy tàggu kër gi bawal jàmbaar ju fonkoon boroom saam xëy maam Mor Jaara jooy na ko tey yaakaar ju réy tas na tey buur yàlla moo mat a gëm xam-xam bu réy bam yoroon ak fit wa ñépp a ko gis ku mos di toog cib jataayam xam ne moo di ko xam sagal na maamam boroom saam fii ci mbàkke bawal weetal na waa mbàkkey dunyaa ko xam fa mu jëm adduna ji xat na lool ay jëf yu baax a fi xaaj ku roy ci seex mustapha buur yàlla xëy ko gërëm amoon na ak ngëm ci maam moor jaara lool ci xolam te lépp lum ca mosaa wax wax ju wér la ju am ku mos di ñëw fa këram sab xol di sedd di ci moom daf daa dundal xol di dàggem xel di dolli sa ngëm amoon na ak doylu am ngor xewar Cheikh Moustapha daana roy maamam ci gépp anam ku dëggu woon la ci ay wax ak ci jëf tadu mer ku teey la woon ku amoon xel yal na làq ngërëm yal na ko buur yàlla teerook ay teraanga yu rëy tàbbal ko aljanna mook cheikh muudu astu magam ay xalifaam nag nii la tëdde sëriñ baaram mbàkke moo ko wuutu ci atum 2009 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu sëriñ moustapha béto boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal nag sëriñ moustapha béto sëriñ moustapha béto nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci liñ tudde ak màggal ci atum 1970 nag lañ sosoon bis ba taawam bii nag di sëriñ baara mbàkke nag moo ko sosoon jàppoon ko nag ci guddi gàmmu bés bi nag ñu ngi ko njëkk a amal ci le 17 mai 1970 ci dëkk boobu nag sëriñ Moustapha Bétoo nekkoon nag di Bétoo màggal gi itam nag màggal nañ ko nag ci guddi gàmmu ba ci atum ci nag la sëriñ baara mi nga xam nii nag moom moo ko sos jàpp na itam nag Bétoo dëkku bay la te ñu ëpp itam nag ci taalibey sëriñ Moustapha Bétoo yi bay nag la yaakaar guddi gàmmu dana ko sori taalibe yi itam nag danañ am jafe-jafe nag mën a def nag ci bis bi ci la sëriñ nag mi ko sosoon yóbbu ko nag ci ñaar fukki fan nag ci weeru décembre ci 1986 méngale koog nag nawet bi nag mën a pare wéyal ko nag ci atum 1986 ba ci 2018 ci 2018 nag lañ ko yóbbu nag ci ñaar fukki fan ak juróom nag ci weeru décembre di ko ca màggal ba tey nag ngir fexe nag mu jege nag nawet bi 2018 nag ba tey itam nag ñu ngi koy màggal nag ci le 25 décembre léegi nag ñu boole ci nag di ci fàttalikuwaale nag sëriñ Moustapha Beto ci diiru 1970 nag ba ci 2009 lépp itam nag sëriñ Moustapha Beto itam nag mi ngi koy teewee nekk itam nag jëwriñu nag gàmmu gi wala nekk itam nag jëwriñu màggal gi ñuy ñaan ca doomu sëriñ Moor Soxna ba sëtub Maam Moor Jaara ba yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jay alxuraanul karim amin